jadi Jangan tahu Yondi gajel ifi wai Luntinya ngepule Kau menunggu di tiga

nit bu tëddee di nelaw bul dugal sa loxo paaka mbala fourchette di ko xoos man dimanche laa si ci dëkk bi mhm. man Youssou Ndour moo ma yëgal xaw ma woon ndekete dëkk baa ngi toj fu ne nit di ma koo bi ma ñëwee ba dugal sama bis Sénégal dafa mel ni dama ray nit sama ay nitu sëriñ sax dañuy yëkkati seen téléphone di ma woo te wax jotewu ma kenn dara Adama man musuma musoo gis ma wax kenn. waaw ah. musoo gis ma teg xawma sax live ni koy defee je ne sais man man seer laa man xawma sax live ni koy defee musuma ko def de ma vie je vais jamais faire ça mais dama ne la man une personne ne me dénigre pas au Sénégal man du ma tapet man ci dëkk bii laa dëkk màggee fi yaroo fi paasuma ñëw du ma tux du ma naan du ma fóon duma drogué duma caga duma lesbienne kenn tëddiwuma ken gisuma ci hôtel bokuma nat bokuma tour bokuma daayira sama abis garden la am ak sama business sama njabot sama kër jeex na man fu ma di wër dooma fa fekk parce que demuma dikkuma après attaque yi commencé ñu def coalition coalition boobu day saf de tàmbaleegul yow tooga rek nga seetaan nga ngay seetaane semaine prochaine ci ngay am yow loka parce que yow kaawa ko tàmbaleegoo de déggoo ma la conteneur yi ñu am dédduwaane nañ ko ba pare te xam nga fuñ ko dugalam ci sunu bopp yi ndax lu ñu kon daal da bëgg a wax ne sa doom. kon yaakaar naa ni ñoo déglandoo kàddu yooyu nga xamante ni ki nekk ci vidéo bi yëkkati na ko man nag duma ci commentaire duma ci wax A duma ci wax B li may wax rek junju doy na boroom xel wax ju yegg dofa ko moom yéen ñi seetaan def leen ci seen jàngat def ci seen analyse ba noppi daal di ci tirer seen ay conclusion wasalaam. Yo